toog di nuyu ci bisub Seex Muhammadul Moustapha bii mu doon defal sëriñ bi di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm yéen ñëpp Seex Moustapha mi nga xam ne mooy sama turandoo dama sant yàlla ci tudd gi ñu ko tudde bisam day tay jii muy doon jëmm joo xam ne nag kon dama ci sedd seede su gàtt rek ndax daanaka lu soxel jot rek waaye waajalu ma woon dara dama ne woon sëñ Moustapha nañ ma jégal waaye sëñ Mourou Moustapha moom loo su soxel jot rek ci taarix da ci mën a seede noon na jëmm joo xam ne ni ko sëñ Abdul Xaadir Mbàkke daa ma waxee ne sa turandoo lu ñu wax ci moom ci baax bàyyi nañ ci dara waaw la loolu la ma lu ñu wax baax rek nañ ci noonu la ko yàlla bindee woon doonoon na koo xam ne boo ko doon melal da ngay wax ne ku fees bopp la woon loolu doy na ci seere guddik talaata gi muy indi sëñ bi fii nga xam ne biñ koy yëg dix heures ci guddi war naa jot diggante boo ku ci mën a lijjanti lool ba ba lépp mën a taxaw bañ mën a indi sëñ bi ba mën a toppatoo lépp ba fajar laataa jot loolu ca waxtu woo ko xam ne jamono ji demee woon booba da nga xam fees bopp sëñ Mourou Moustapha ndax booba mësuma di gis sëñ Abdoulaye mu ne ma laaj naa ko ne ko ne ko waaw booba moom loolu noo ko defee noo ko mu ne ko booba de damaa xam ne fu tiis di àgg ma yor naa ko waaye nag damaa damaa xam ne sëñ bi yoroon boppam mbiram ma jóg rek dox jëm ci loolu lépp daal di daal di ubbi ko daal di léegi bu ko defee nag nga xam ne kon moom am na lu daje woon ci moom lu jafe mooy bopp fees dell ànd ak ak ak ak ànd ak ji ba siiratu maanaam li ñuy vision ku amoon gisu xol ndax ba muy laaj titre foncier bi ci dëkk bi loolu boo yëngu ba amutoon gis-gis xelit néew na loolu mu ànd ak fit ku fit la ndax bu amutoonu fit ju jumaa ji rek doy na ci firnde jumaa ji ci waxtu woowee xadd ko ak mboop rekk yombut jiim ko fetañ rek yombut ku am sa xel di ko xalaat di ko xëcc muy mat téeméeri mètre ci waxtu woowa te booba ab dërëm mënta am fenn ndax seex yi gën a naw booba leen suñu Madu Musaa sas muy mel ne sëñ ma jëmm sàmba yooyu mooy juróomi jinni juróomi jinni la sas yi gën a ndang booba foofu la tolloon kon xoo kooku xam nga ne gis gisu euh, na loolu moo lay tegtal aw fitam ku am fit la ku am xel la la ca dolli ko nag mooy ku ku teeyoon la tanangoo diisoo daf daa wax ne bu ma juumee rek mbooloo juum loolu loolu la daa wax ndax sëñ Modou Gelangel daana ko nettali sëñ sëñ Modou Sa balaa wax dana tegale ay guddi yoo xam ne ku ne dana wax ak yow bu waxee ñoom ñëpp nag mujj sëñ Basiiru waaye sëñ waaye dana wax ak sëñ Omar Mbàkke Gelangel ak sëñ Sëtu Jaxateek sëñ Bay Jaxateek sëñ Laay Jóob leew naak mag ñooñu noonu nga leen di toppi bañ doon groupe bu gudd boo xam ne ku ne dana la wax ne waaw mbir di sàngam de laar mu xalaat ba xam yow dama xam lu ci sa xalaat mu ñëw ñëpp daje xale yooyu mu mujj sëñ Basiiru ne ko yow lu ciy sa xalaat diw di doon na wax nangam waaye diw di doon waaye yow li nga wax rek laay ci laay laay def loola dara fas loolu taxan na yàlla dimbali ko ba ba du ma ne fu ma juumee rek mbooloo juum amoon na xikkam lool te mën a te mën a am lu xik man koo wax lool bokk na ci xikkam yi mu daa wax ma jëlee ko ci mag ñi danaa wax ne nit bu la nit bu la bu fekkee yemaliwu laa kenn nga yemali ko ñépp boo yeexee mu ëpp la ngor <laughs> seetal loolu boobu xekkam rek daana waxe nit bu la bëggee nang nanga koy mayu lay seet beneen xekkama ngor dégg naa ci si Abdoulaye mu ne sëñ Mourou Sa ko wax ne ko yépp maa ngi la koy digal mu ne ko yet mu ne ko bala kilifa jegeelee jegeelee boppam na koy wattandiku ci yet mbóotam moom génneegul ak alalam ju yees ju ne ak gan kum fonk <laughs> nañam foofu bokkul la xam ne wantum bi xëy na asalaamaaleykum